sëriñ Abdou Khadir ak dogoom rek ak dëggoom ci laay wax su na si yoneen ba soppeem la teg dëggoom te tawxiid sareexaam ak xaqiixaam lu nekk a mat mu woor lu ñu sib xëddam di yiw jub ga doon dogoom jëfi sunna ab diir sonn jël sunna sànni fee ñi ñuy yéem di lii lañ yam sunum jiili sax ci moom bis sunu jàmbaar jaa ngi ñëw kooku mooy kan ilimaani teeg bu ëllëgee Cheikh Abdoul Khadir l'islam jëmu ko Sénégal yëbu ko ñi mu jur yar na leen xettali na bindeef yëpp ku mas a tiit baa nga jàq baa sa bët xong ba jàkkaarloog a sëñ Abdou Khadir mu weex tàll kooku la ñuy wooteel muy la treize ci la ñu koy fàttaliku di ko ñaanal ñaanal ko boole ca doomam ju baax ja sëñ Modou Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir ak njaboot gi yëpp moo tax sëñ Moustapha toog fii dend ak njabootu mbusoobe yëpp moo tax nu toog tey war a jàkkaarloo yéen di leen xamal ni nag cérémonie officielle bi ci suba gi lay doon waaye am na ñetti taabal rond yu ñuy def benn bi ñu ngi koy defee Soura kër Touba Mbakke Moodu yonni benn bi ñu ngi koy defee kër Cheikh Abdoulaat moom sëñ Abdou Khadir benn bi ñu ngi koy defee Njenne kër sëñ Mbakke Njenne ak waxtaan yu bari yu ëmb Cheikh Abdoul Khadir ak la jëm ci moom lépp daañu ko leeral soññi daayira yi yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew. noo ngi leen di nuyu fii ci jataay bi nga xam ne fi la daa toog te toog fi tey jii. di yeesalaat lañ daa yeesal di fàttali lañ daa fàttali ci ndigalul Serigne Cheikh Mbakke ibnu Cheikh Abdul Qadir mu jox ndigal rakkam xaritam soppeem wéttalam Serigne Mouhamadou Moustapha mu toog fii ànd ak njaboot gi war a teew nañ daa teewe jottali lañ daa jottali ci ndigalul Serigne Mouhamadul Mountakha di ko defee ci barab bii nga xam ne nag fi la Cheikh Abdul Qadir doon liggéeyee bi mu liggéeyee liggéey bi ba noppi nekk fii fi kanam way juróom yi cheikhul xadim mu nëru lool ak la cheikh la Mouhamadou Abdullahi Alawi waxoon ci cheikhul xadim mahallu qabdi ruuxihi mazaaru tuqda bihi alxawjaau izizaaru fii la ko sama borom moomee woon mu nekk fii sës ci sëñ di diggante boo xam ne bii boo am yaakaar la ku fi ñëw boo dikkee loo fi ñaan ci sa positif loo sa borom am na ko mën na ko dana ko def ci barkeb Serigne Touba ne ñëpp waaj te dikk nañ daa dikkee taxaw nañ daa taxawee liggéey def liggéey bi nañ ko daa defee taxta rihaayati sayid muntaxa mbakke xafisahu llahu waraahu wa atamma jamiha mashaari'i bi riasati sëriñ seex mbakke xalifati seex abdul xaadir mbakke yasurruni wa yusharrifuni an nurahiba bikum fi hadihi rihab at-tahira wa an nuhayyikum bi tahiyatil islaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu hindama tahwabbu alayna nasaimu muharram min kulli aamin taxtaliju fi nufuusina ahaasis wa dikriyaat tafiidu bil xisqi wa shawqi sadiid li haada saim addiini wal batali islaami raabihi alxulafa alcheikh Abdul Xaadir Mbakke alladi kaana namoosu jan musharrafan lirrajuli lmuslimi alladi arafa waajibahu fa akmalahu ala akmali wajhin wa kaana yashaa fi qadaa'i hawaaiji du'afaa wa yacuudu mariidahum wa yuxaffifu min aalaamihim wa yabushu lahum wa yarxamuhum wa kaanat wa kaanat jalasaatuhu xaamira bil ahaadiisi nubawiya wal mawaaxiis bal inna xalbahu asbaha amiran bir rohaniyat baxda anim talaa wa faada bi mahabati sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam wa mahabati cheikhihi wa walidihi cheikh alxadim alxuduuru alkarim yatiibu lii an uhanni xadaraatikum jamihan niyaabatan an sëriñ Cheikh Mbacke bi hadihi almunasabati alazima wa natasharrafu bi daawatikum daawatan aama lil xuduuri wal mushaarakati maana fi lfaaliyaati diiniya allati nunadimuha bi taarixi alxamis asaalisi asar min aylul septembre alxaadim taxliidan li dikra milaadiyatihi wa fi xitaami kalimatihi haadihi atamanna li haasihi alxaflati diiniya kulla tawfiq wassadaat atrukukum bi rihaayatillaah wa kullu aamin wa antum bi xayr asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ci ndigalul sëñ Muntaxa ak ci kilifteefam ndax biñ ci laataa def dara sëñ seex dem na ci ba tàggu ko ba jox ko ci ndigal kon ci jataay bi moom rek lañ fi nekkal ci baatam ak ci kilifteefam ak ci njiitul sëriñ Cheikh Mbacke ci lay bëgg a jotalee ci kàddug sëñ seex woote bisub Cheikh Abdoul Khadir Mbacke bii ñu di ko wootee ci pàkk bu laab bii di pàkk boo xam ne néewaa na foofi doxe te sëñ Abdou Khadir julliwu fa fu ci ne rek ak julli na fa yor yor wala mu jàng fa alxuraan kon pàkk bu barkeel la mm-hmm. jege it jumaa ji nga xam ne mooy suñ lépp ñi ngi leen di nuyu ci pàkk bii di leen xamal ne daa saa bu mu xaram ngelaw li uppee dana def suñ xel ñun ñëpp dana jàpp ñu fàttaliku Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ku ne am loo yëg ci sa bopp loo xam ne yaa ngi fàttaliku kilifa diini gii nga xam ne jàmbaari lislaam la woon joo xam ne roy yàlla defoon na ko mu nekkoon mu nekkoon santion boo xam ne boo bëggee gis jullit boo xam ne la doon wërteefam defee na ko nam ware sa xel dana dem Sëñ Abdou Khadre doonoon nag koo xam ne ku daa dimbale néew doole yi la te di leen wan kanam gu leer te di leen yërëm te ku ci wéradi mu mu mu seet seet seet seeti la loolu bokkoon na ci ay jikkoom ni ko sëñ Abdou Lahad daa séeréel rek danaa wax na sëñ Abdou Khadre li ñu ko fi indee ca loola rek la ne te koo jóg booli booliwut sas waag dara amul xëy di gont amul xëy di wàcc <laughs> loolu nag ci la nekk ba yàlla may ko li mu ko may kon sëñ Abdou Khadre Mbàkke moomu nga xam ne ab jataayam boo jàngutoon xam-xam sax boo fi yàggee da nga xam ci sunna dara da nga xam ci hadis dara wala ndax waaraate yi ab jaa jataayam ci waaraate yooyu rek la daa dund sëñ Abdou Khadir Mbacke moomu nga xam ne ab xolam dafa fees dell ci bëgg yonent bi alayhi salaatu ak bëgg sëriñ bi moom moomu nag lañ leen di woo ci bisam li fay àdduna yëpp bàyyi kenn mboolem ku yor ki eh, kilif ku nekk kilif ak aada di di di ko yëgal président de la république di ko yëgal it premier ministre di ci woo mbooleem koo xam ne si mbokkum jullit nga ñu ngi la ciy woo di ci wooye masaayixu taraxi suufi yi ne sëñ Sam sa dana ci ñëw ci kanam yépp di ci woo wëllëri yi di ci woo taalibi yi di ci woo mbooleem koo xam ne amoon nga ak moom ak cofeel rek foo mën a ne di soññ ñëpp ci njàngum kaamil mi mm-hmm. di leen xamal ne bis bi nag alxames lay dajeel noonu ñu ko waxe mm-hmm. di dajeek fukki fan ak ñett ci weeru septembre wii di ñëw ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn cérémonie officielle bi nag bu ñu màggalee ba ci suuf sa lay doon ci àjjuma ji ñu ngi ciy woo ñëpp di woo mboolem ku di bokki tali bi tal di leen wax lañ leen daa wax rek kuy ñëw na nga àndaali say bagaan rek mm. ndax inna li rabbikum foofu lañ ko sukkandiku inna li rabbikum fi ay ayaami daxrikum la nafahaat ala fa taxarradoo laha kon ku indi ay bagage bagaan te ànd kook positif rek loo ci taatan yaakaar nañ ne lim liggéeyal yàlla ak cër bi mu am ci sëñ Tuubaa mën na laa may loola mi ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne mooy kàdduy Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Qadir ci ndigalam lañuy ñuy yëkkatee kàddu yi moom it lépp loo xam ne mi ngi koy yëkkati mi ngi koy yëkkati ci ndigalul ay kilifaam muy Cheikh Mouhamadou Moustapha mi toog ak Serigne Cheikhum Serigne Abdoul Qadir te ñoom it seeni kàddu yëpp ñu ngi koy yëkkati ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu leen di ñaanal ñoom yàgg fi lool te wér kàddu yi nag kàddu yi fàttali la bisub Cheikh Abdoul Qadir kon ñi ngi fàttali bis bi ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikhul Khadim gépp ak bokki mbakke mbàkke yépp tàmbalee ko ci njabootuk ma maaram waaye di ci woo njabootuk bi gépp ndax ku ne xam na seen digg ak Cheikh Abdul waaye di ko fàttali cheikh yi Cheikhul yi nga xam ne am nañ gërëmul seexul xadiim ca seenu njaboot ku ne xam niñ demee njabootuk Seexul Xadiim rawatina Cheikh Abdoul Khadir waaye nag ku ne xam na Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadirum jullit yëpp la kon ñi ngi fàttali turuqi suufiye yi nekk ci senegal yëpp di këri diine ndax sëñ Abdoul Khadir kat dafa jëmmaloon sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca kenn ku nekk fa yaa ngi tibbe ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñi ngi ñi ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp bisu Cheikh Abdoul Khadir kon buñ nee turki suufiya rek mooy këri diine yépp ci senegal mhm. ak képp ku yëngatu ci lislaam lislaam ñor la ci xam nañ ne seen bu xaadir mooy ki nga xam ne ñëpp a maase dëppoo ci moom la naari gànnaar yi waxoon ci Sëriñ Tuubaa ne jafe nañ ñu gis koo xam ne waa gànnaar dëppoo nañ ci moom ci ku dul Sëriñ Tuubaa waaye Sëriñ Abdul Xaadir mooy koo xam ne lislaam bi yëpp dëppoo nañ ci moom ndax nim jëmmale woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëmmale woon ko njàngalem lislaam boole sharia ak xaqiqa lépp mat sëkk kon kon bu bisam ñëwee buñ koy fàttali dañ koy fàttali jullit yëpp waaye di ko fàttali rawatina njabootuk boppam gi nga xam ne ñooy ahlul quraan mooy ñooy jàngkati alquraan yi ci daaray kaamil yëpp ñooñu moom ñu ngi leen di fàttali bu ñu tàmbali léegi li nga xam ne ñi ngi ko daan liggéey ci jàngal ko alquran ci fuñ mën a nekk ak daare alquran yi ñoom it ñi ngi leen di fàttali bis bu baax waaye di ko fàttali ñi nga xam ne it seen taxawaay fis na lool ci bis bi muy turandooy Cheikh Abdoul Qadir yi waaye ñi nga xam ne it lépp loo xam ne am na ci bis bi ci waajtaay wi ak bu ñëwee ñoo koy jottali muy taskati xibaar yi ak tasukaayu xibaar yi ñoom it ñi ngi leen di fàttali bis bi ndax sëriñ Abdul Qadir radiyallahu anhu bu ñëwee dundam gépp am njàngale la dundam bépp njariñ la kon lépp loo xam ne ñu ngi ko fi taataane àdduna bépp soxla nañ ko ku ne xam na ne bisub sëriñ Abdul Qadir bu ñëwee danañ ko waajal waajal ci ay jotaay yoo xam ne dañ koy amal ci kër njabooti sëriñ Abdul Qadir yi ren nag am na ñetti kër yoo xam ne tànn nañ ko ci kër yu mag yooyu nga xam ne ñoo askanoo ci sëriñ Abdul Qadir radiyallahu anhu sëriñ Touba moom sëñ yoon ni ci juróomi fan ci weer wi fa la amal jotaay bu njëkk bi juróom-benneelu fan bi muy suba ci ëllëg sa ci kër sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Abdul Qadir moom it dinañ fa amal jotaay waxtaan juróom-ñeenti fan yi ci kër sëriñ Mbàkke jenn ca njenne mm-hmm. waaye ku xam na ne buñ demee ba bañ ne ginnaaw suba la màggal gi muy talaata dana am conférence bu mag boo xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel conférence boobu it ñu ngi koy fàttali ginnaaw tàkkusaan muy juróomi waxtu lay am fi mu daan amee rek nga xam ne ñëpp sëti Cheikh Abdoul Qadir yi ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawal ànd koog sëti borom tubaay yëpp ànd kook taalibe yëpp bisu màggal gi it ku ne xam ne li ci li ciy am rek mooy jaamu yàlla rek jaamu yàlla ndax fàttaliku Cheikh Xaadir ku koy fàttali jaamu yàlla nga koy fàttalikoo kon danañ fi jàng alquran danañ fi jokk bokk danañ ci ziyaare mooy li ci daan am ci bis bi loolu mooy am ci bis bi mooy ziyaare yi ci am ak njàngum alquran mi nga xam ne moo ci am ku ne xam ne ni guddi gi it ci buntu bi bunt kër gi am na danañ fi jàng ci guddi gi euh, cérémonie bi it wax nañ ko léegi muy am bu fe bu ñëw màggalee ba ci suba ga kon loolu mooy li nga xam dañ ko doon yëkkati ci turu sëriñ Siidi mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di ko jotal mbokk yëpp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp di ñaan yàlla mu fekkee fekkeloonu ko ci jàmm dañu tal ko te lépp loo xam ne nit fas na ko ci suñu boroom defal ko ko ci ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mbooloo mépp di leen yégal bis bi nga xamante ne moom la sëti Sëñ Abdou Khadir yi baaxoo yëkkati di ko ànd ak turandoo Sëñ Abdou Khadir yi ak bokk yi di ko waajale màggal gi muy bu ne gannaaw suba la màggal di ko defee fii ci buntu kër Sëñ Abdou Khadir muy tombeek ren la 11 septembre de talaata bu ne gannaaw suba la gi foofu nag am na tuuti lu fi soppeeku muy waxtu wi muy waxtu wi kon léegi day mel ne bu ñu salmali takkusaan ci lañ fas yéene def waxtaan wi waxtaan woo nag euh, thème bi biñ ci tànn ren mooy ahamiyatul ilmi wa asruhu fil fardi wal mujtama solos xam-xam ak i itam ci nit ñi ak mbooloo mi sëñ Mbàkke Abdourahman it mooy def waxtaan bi ñu ngi ciy woo nag mboolem ñun bokkal Serigne Touba ñëpp di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Mourtala ñëpp ñu ngi leen di woo tàmbalee ci kër soxna Fadja ba ci soxna Maymuna ñëpp ñu leen di woo ak mboolem ñun bokkal si Mor Anta Sali ak mboolem ñun bokkal Euh, maam Balla ak mboolem ñu mbokkal maam Maharam ñëpp bokk yëpp ñu ngi ñu ngi leen ci woo te di ko ànd ak ñoom ndax ñoom ñoo ñoom ñoo ci bokk yem ndax seen Abdou Khadre moom ñëpp ko bokk euh, ñu ngi ci woo mboolem ñi nga xamante ni ñoo bo ñoo bokk ñoom suñ bu sóobi ñu ngi leen di woo ak mboolem waa kër maam Saabou sa ñëpp bàyyiwuñ ci kenn mboolem seexi Serigne Touba yëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi wax ci turu waa daahira ahlu tarbiya bi wax ji tam weesuwut soññee rek ca nan daa soññee ah Serigne Touba nag li mu jiital ren dafa wax ne lépp loo xam ne lu ñuy def la nan ci jiital ab yar ak i teggin ndax nit bu fekkente ne dañ ko jaarale ci barab ba war koy roy fu mu dugg fu ne war na faa dugal jiital ab yar ak i teggin ak liggéey ak nangoo joxe loolu la Serigne Touba wax ne nañ ko jiital reen bu noppee itam nag ñu teg ci ah di soññ ñi ci biir réew mi ñëpp ak ñeneen bitim réew di soññ mag ñi di soññ ndaw ñi ah di bëgg nag. nan daa doxe rek ñu doxe ko ndax ci wanagu sëriñ bi lan daa liggéeyee mu wax ne dafa bëgg nañ fi jiitu te mujj fi gannaaw loola itam mu wax ne dafa bëgg itam addee yi nga xam ne dañ ko daa joxe ñi ci biir réew mi nañ ko yónnee mu egg si bare ñi egg ci bis bi ñene bitim réew itam ku fi nekkut na nga ko yónnee sa ndaw la ne ca kër ga waaw loolu la wax daal nañ ko fàttali te fas yéenee am pasteef bu baax ci liggéey bi taxaw ci te kenn ku ci nekk looy bëgg nga fas ko ci te xam ne Serigne Abdou Khadir mën na lépp. duru suñu jëwriñ Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moom la Serigne bi teg suñ kanam muy suñu jëwriñ eh, mu leen di fàttali rek li nga xam ne amuñ lu may moom mu bisu Cheikh Abdou Khadir bi nga xam ne mooy suñ bis. li ñu ci war nag mooy dalal mboolem taalibe boo xam ne jóge na ci biti ñëw ngir màggal gi bu ñëwee ñu ñoo ko war a yaatal dalal ko toppatoo ko ba du tumaranke ci dara loolu nag. tax na sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax ki nga xam te ni mooy sëriñ Cheikh Goumbale bi nga xam ne mooy jiite fédération Dakar te li ñuy wax ñoom moom moo ko bokk ci turam lañ koy wax ak di sant itam fédération Espagne ak waa Italie ndax digal li nga xam ne sëriñ bi di digle woon na ko mu jëm ci baas boo xam te ni sëriñ bi dafa xam ne ci am nawet lañ nekk te nawet bu ñëwee day day aajowoo taalibe yi fi ñu nekk mu doon fu mucc ayib. mu santoon ñu defar ñu defar baas boo xam ne dana mucc ayib nee na day addi yi nga xam ne te nii ñu dajale woon nañ ko muy waa muy waa Touba ak fédération Dakar ak fédération Espagne ak waa Italie lépp agsi na sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ci loolu yi dina soññaat ci li jëm muy màggal gi addi yi nga xam ne moom lañ ci warloo ñun ñëpp ñu ñu dajale ko te teel koo indi ndax ñu mën a teeru gan ñi teral leen sëriñ bi itam nee na mi ngi mi ngi sant bu baax sëriñ Seydou Niang ak sëriñ Cheikh Niang waa kër waa kër suñu Cheikh Niang bi ak waa sëriñ Baara Mbacke suñu Cheikh Baara Mbacke di leen sant ci yii wéy di leen soññaat itam ci yii ñu jublu di leen séenu teraange yi nga xam te daa nañ ko def ci bis bi ñu ngi leen ciy séenu bu baax ndax doon na teraange yu solo kon ñu ngi sant ñëpp di wooteel bi di leen xamal ne mbale bi nga xam ne baaxoo nañ ko def bu màggal gi jublu si incha allah ajjuma la set lañ koy def bu ñu xëyee ci ëllëg sa di di la huit di samedi ci lañuy tàmbali bâche yi bu boobaa nag bu ñu tàmbalee bâche yi ba ba màggal gi wéy ku ñëw da nga fi da nga fekk ku dem fi nga ñuy bàyyi ñu ndax ñoo war a teeru gan teral leen. di leen xamal ne ñëw nañu fii ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke mu Serigne Amdi Darou Salaam ak soxna moom bintu Seydina Cheikh na Abdou Khadir di leen xamal ne dafa wax ne buñ fi ñëwee ñu wax ci ñu lu jëm ci soññu ñi nga xamante ne ñoo tudd ay jiili nga xam ne ñoom la yàlla dogal liggéey bi soso woon ci seen loxo. mu ne mi ngi leen di soññ bu baax te xam na ne sax jëru leen a soññ dafa fekk ne jaasi lu mu ñaw ñaw boo jubee ci xare yeesal ko rek waaye xam na ne pëseef bu ngeen amoon ba taxoon ngeen xalaat xalaat bu rafet ba sosoon liggéey bii ba tey ku nekk bëgg cee jàpp pëseef boobu ba tey ji leen ko yokk waaye wàññiwu leen ko di leen xamal ne nag da ngeen cee am ay liggéey am solo liggéey am solo yooyu mooy organisation bu am doole bi nga xamante ne moo ci ëpp solo te ñu war koo def ci base bu mag bi nga xamante ne moo nekk ci biti te sëriñ xaadim gi war cee fanaan ba tey sëriñ bi da ko yeesalaat teg ko ci seen loxo kon nee na na ci bàyyi xel gan ñi nga xamante ne ñoo aju ci daayira turandoo yi te di jóge ci bitim réew wala ci région yi nga xamante ne ñoo tabaxoo biir réew mi ñi ngi leen war a dalal ci kër sëriñ Murtala te yéen a am seen toppatoo muy soññ nag turandoo yi nga xamante ne dañoo bàyyikoo ci kilifa yu tedd yi nga xamante ne wëlëranteeg Seex Abdu Xaadir moo taxoon ñu tudd leen Seex Abdu Xaadir ne leen yaakaar na leen ci bés bi yaakaar na leen ci liggéey bi yaakaar nañ ci seen loxo ndax daayira turandoo yi lu ci waay def ci liggéey bi rek ñoom ngay jàppale incha allah fas nañ yéene ajuma jiinu jëm euh, ñu tàmbali réunion yi te gaaw ba ci topp sax fas nañ yéene incha allah saa su 10 jotee rek ba ba jant bi so képp ku ñëw kër seen bu xaadir da nga fekk secrétariat bi nga def say watu matukaay. liggéeyal Cheikh Abdou Khadir faraasu la niroo naag yàq waaye ngóob moo ko weddi ku da bàyyiwuñu kenn nag bàyyiwuñu fenn presse bi ak communication bi sëriñ Thialiou Mbackeem Cheikh Modou Abdou Khadir mi ko bàyyam bii dénk mu ànd ko ak nun soññi jëwriñ Abdoulaye Lam nga xam ne nun kër gii rek la ñu am média bi kër gi yàgg nañ fay ñëw waaye këru barkeelu la képp ku ci feeñ ci lu baax sa média jëm kanam te dootu jëm ginnaaw kon nag na ci média yëpp feeñ ci lu baax weeru feeñ ci lu baax teru na sëñ Abdou Khadir lu baax rek lees ko mën a waneel julli rek lees koy waneel jaamu yàlla rek lees koy waneel sopp rasulaay rek lees koy waneel xanaa di ngeen la sëriñ Lamine Diop waxoon nee na booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee sëñ Abdou Khadir kabaral mooy penku bale si buri sëñ Mbacke maaram ñoo ngi ñaan sëñ Cheikh ak rakam yi Cheikh Moustapha ñu yàgg lool te wér waaye bisu Cheikh Abdou Khadir daal ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbb alxames la ba séddi àjjuma di cérémonie bi di fukki fan ak ñett ci weeru septembre wii nu nekk di ay ngëneel yu Serigne Touba waxoon maam Thierno Birahim ndaamal daaru wax ko ko mu dellu ko ca bu bis bu jotee ku ñëw am ca loola sëñ sëñ Moussa nag yéene na leen ko moo tax mu ni ngeen indi bagaan yi bu kenn indi ndab lu ndaw bis baa ngoog la treize la bu kenn manqué.